صاليا وظلما على النبي واقض بي عدد كل مسلمين براز من بارزني براز من يبارز منتقما بارز من mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen tey jii nag ci bés bu sell bile euh, ñu nekkee fii ci Aliya seex mu kër Cheikh Moustapha Mbacke xalifa euh, Serigne Alaaji Baara xam ngeen ne bés bi nga xam ne moom la ñu ko jagleel ngir fàttali ko jëmm ju sell jooju muy Cheikh Mamadou Lamine Baara waaye dañoo toog euh, ku mag kilifa gu mag di El Hadji Ndiasse Ndiaye koo xam ne ràññee nañ ko lool ci yoon wi ginnaaw ba ñu ko nuyoo rek mu bàyyi ko ñu nuyoo ñi nga xam ne ñoo koy topp ci 24actu sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu. aoudu billahi samiil alim min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina irtafa sayidina muhammadin albasiri nazir wa ala alihi wa sahbihi wa jami al anbiyai wal mursalin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wal tukammil aqdi wa ilmi wa sahyi warfail yowma kullaha yaa muini euh, jërëjëf euh, sëriñ Ousseynou euh, ci taxawaay bi ak njiit ci wàllu caméra bile di 24 actu nga di ñu laaj nag loo xam ne maa ngi ci fas yéene tontu di ñaan yàlla musal ñu ci ñetti njëppite ndax dañu wax ni booy wax. te li ngay wax du dëgg da ngay jéppi sa bopp ñi ngay waxal te mu wér leen ne li ngay wax du dëgg dañu lay jéppi yàlla mi dara umpul jéppi la wa ma shahidna illa bi ma alim na kon seede ba ca gën nga seede loo xam fii ñu teew tey ci Alieu di kër euh, Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne yi Touba yi ngeen di dégg di ko gis euh, liggéey bañ ca daan def fii la ko seex Cheikh Mouhamadul faadal faggoo woon eh, fii boo demee ci histoire barke barab bii dem na ba ci loolu ñuy wax gerte eh, senegal miin ko lool eh, na fi gooñ ngooñ goo xam ne genn ngooñ goo xam ne junni doom moo nekk ca ngooñ ga nga xam ne loolu bu ñu xoolee rek ci histoire ba léegi foto yaa ngi fi Cheikh Mamadou Fadal téye ngooñ googule barkeel loolu loolu lay wane. Mm-hmm. Euh, waa suuf su barkeel ndax xam ngeen ni genn ngooñ gu génne junni doom bi ñu ko ñee mm-hmm. léegi xam nga ni e, loolu yombul a gis te ca yooyu jamono yi di yombul woon a gis su ko defee kon mm-hmm. ñu teew ci biis boo xam ne bisub Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la mu doon jëmm joo xamante ni ji dafa bëggoon Serigne Falilou mbëggeel goo xam ne euh, euh, maanaam Serigne bu sa Dieng mi mu bokkal Cheikh Mouhamadou faadal Euh, mas na joxe benn question di laaj kan moo gën a bëgg sëriñ fa Falilou mm-hmm. euh, maanaam génn ab junneem di wax ni ku ma ko jëkk a wax rek ma jox la ko mm-hmm. waaye dañuy wax ni euh, keroog gaa yi fu nekk làmb nañu fa mm-hmm. ku nekk ñuy xalaat ni moom la moom la moom la ba ñu yeggalee ba waxuñu turu Cheikh Mamadou Baareel dafa dencaat ab jinneem nii yéen xamu leen kan la ñu ni ko kan la mu ni mu Mouhamadou lamin Baara. Hmm. nangam bu ci nekk ñu wutal la aw dàkkantal. wa waaw maanaam junni boobu. Hmm. nga xamante ni bii Cheikh mu euh, Moustapha Mbacke ñu di koy wax sëñ Modou Bousso Dieng génne woon na ko di laaj. posé question ku gën a bëgg. sëriñ Falilou. fu nañu làmb fa jotuñu ko. Euh, la dencaatub jinneem nii yéen xamu leen kan moo gën a bëgg. sëñ Fallu euh, waaw ndekete yoo. Mm-hmm. ñun ko laaj Mbàkke ko ku mu doon mu ni Mouhamadou Lamine Baara. moo gën a bëgg sëriñ Falilou. mbëggeel googu nag yàlla dogal na tey gis ngeen li ko ci yàlla defal. Mm-hmm. ma nga ñu uufal Cheikh Mouhamadul euh, Fadal. Euh, euh, maanaam fii nag. ci gàttal di allié ñu toog ci kër koo xam ne. moo di ab xalifaam. di Cheikh Moustapha Mbacke. moom Alaaji Baara. Cheikh Moustapha yàlla séddee ma ko. séddee gi mooy lan. ku ma gis ni ma ana sëñ Moustapha. macha gis sëñ Moustapha ni ko ana Ndiasse. Mhm. fii ci këram gile. xeej naa fi ba néeg la ma fi jox. Mhm. yëkkati caabi teg sama loxo kër gi heure bu ma neex laay fëgg ëgsi aw ma fi sens interdit loolu nag mhm. dafa dëppoog xaddis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax mhm. yonent bi dafa wax ni wala tusaaxib man laa yaraa la kama yaraahu li nafsihi mhm. bu leen ànd ak koo xam ne ni mu gisee boppam gisewu la ni ñàkk fayda mi ngi yem ci ànd ak nit ku la yëgut Cheikh Moustapha nag dafa yëg nitam te baat yi may wax dongo yi koy dégg ak ñi ko xamagul sax tey dégg aw turam ah, duñu ma ci jéppi duñu ci teg lu dul wax na dëgg mooy ak taalibeem mhm. ak woyof mhm. ak bañ a xeeb kenn mhm. loolu nag li koy findeel mooy ah, xiiwlu loolu ñuy wax xiiwlu dem ba ndab yi tege ñu raxasu nga new nga ñëw fii ci Alieu di xalaat fan lay ne ak fu muy jëfandikoo dangay jékki-jékki gis ko muy boo xante ci biir ndab yi léeg-léeg du am place. day yóotu. te yonent bi alayhi salaatu salaam dafa waxaat ni. kullu jamian wala tafarraqu fa innal barakata ma jamaati su ngeen di xiiwlu na ngeen ànd ensemble te bu leen tàqalikoo ndax barke jëfandiku mu mhm. ngi ci andandoo nekk benn loolu nag ko xeebul kenn moo ko man mu nekk lu solo sëñ xam naa bëggoon nañ tamit nga laat ñu ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci lenn ci ay jikkoom moom mi nga xam ne moo waral bis bi tey waaw Cheikh Mouhamadou Lamine moom eh, jikkoom mooy eh, jaamu yàlla ci jaami yàlla yi la way juróom wa daan wax Cheikh Mamadou faadal dama jaamu yàlla waaye ci jaami yàlla yi kenn ku ne xam na ni loolu tubaab yi wax naan nit ko ouvert Cheikh Mouhamadou Lamine Bara était ouvert ubbil ñëpp ay buntam nekk koo xamante ni su ngeen toogee maanaam euh, ni mu lay ubbilee boppam ci wàllu euh, saayir da ngay dem dem a dem ba dootoo lijjanti sax mbirum baatinam te baatin bi euh, maanaam yéeme na lépp xajul sax ci émission waaye am na lu gàtt rek lu ma ci mën a leeral loo xam ni kamu ko defal teg naa ko bët euh, taalibe boo xam ne magum taalibe la yor soxnaam soxna sa dem ba yàlla dogal loolu ñuy wax naan taxaw mm-hmm. amut doom mm-hmm. mu dikk wax ko si Seex Mamadu Lamin Baara Cheikh Mamadou Lamine Baara bind bataaxel jox ko ni ko soo demee na ko takk. Mm. mu dem jox ko soxna si soxna si takk bataaxel ba. Mm. Ah, yàggul dara mu jël. Mm. yàlla dogal bi mu demee ba mucc. mu ñëw ci Cheikh Mamadou Lamine Baara di ko xamal ni ko soxna si day yàlla dogal na ñaan nga nangu na. Ah, mucc na. waaye doom ju góor la am. ma ñëwoon doon la laaj tur wi. mu ni ko soo demee na nga eh, eh, xool bataaxel boobee ma ko bindaloon. Ah, ca la tur wane. mu dem ubbi ba xel bi gis mu bind ci mu Mouhamadou Lamine Baara. macha allah <laughs> loolu baatin fi la mën a yem tudd ko waaw ku juddoogul nga tudd ko. macha allah mu nekk baatin xam naa ne yaa ngi ci xat-xat yi waaye duñ la ñàkk a laaj euh, ak taalibe ak maam Cheikh Ibrahima Fall nan la ko jàngale woon ñu profité ci occasion waaw ak taalibe moom. ndeysaan wala sikrullahi akbaru euh, lu ñuy wax rek euh, baatu lay laay illallaah moo ca gën. bu ñuy tuddee Cheikh Ibra nag. Mm-hmm, xel yëpp daal di dem ci maanaam baat boobule. Mm-hmm, ak taalibe daal ci gàttal. Mm-hmm. ah Cheikh Ibrahima daan wax ne hee a ah, doom bu leen doon taalibe waxaale bay. Hmm? taalibe waxaale bay. lan mooy taalibe waxaale bay. Ah, ñu ni ko Fall luy waxaale bay mu ne ah boutique ku ca dugg. Hmm. Eh, piis boo làmb ñu wax la njëgg te jëndoo doo sol. Hmm. waxaale jënd mooy tax a sol. Eh, ni ah waxaale bay eh, mooy taalibe bu jébbalu ci sëriñ. maanaam gëj koo gis lu mat ay at. siyaarewul joxewul addiye ba dajeeg moom fi barab naan ko ba nga ñëwee kër baay diw ci roon ga mbaa barab sàngam maa jébbaloon ci yow waaw loolu taalibe waxaale baay yi mooy def noonu man maa wax loolu maanaam maa wax ne taalibe waxaale baay yi mhm. ni ko Seex Ibra firee ba tax mu ne bu leen doon taalibe waxaale baay yi kon bu ngeen ko bëggee xam dëgg-dëgg mooy taalibe boo xam ne daa jébbalu mhm. euh, du siyaare sëriñam mhm. du ko jox addiye ba sëriñ bi ci boppam am ngan fi barab ma daje faak moom di wuti fàttaliku naan ko maa jébbal woon ci yow ab taalibe day nangoo jige sëriñam mm-hmm. te di ko jox addiyee fii fii ci ci gàttal nag mm-hmm. naa ci tëje ñetti baat mm-hmm. yoo xamante sëriñ tubaa ko wax sëriñ tubaa dafa wax ni eh, maanaam adduna juróom benni ndab la juróom benni ndab ñaari sa këru bopp ñaari eh, say dëkk ñaari ci des sëriñ sa këru bopp gi na nga yëngu ci lu lay jariñ tey lebloo mën a fay ko ko def di nga am jàmmi kër mm. say dëkk mm. na nga leen bàyyeeg seenu jigéen ak seen alal mm. koo dëkkal te merewu la ci jigéenam merewu la ci alalam seenu dëkkin dina neex mm-hmm. sëf sëriñ lii maa la ko jox mm-hmm. li nga ma doon liggéeyloo yegg na boo amul loo ko jox liggéeyloowu la dara sori ko mm-hmm. kon ab taalibe loolu la seq ak sëriñam macha allah sëñ Ndiass ñu ngi koy sant baax di ko gërëm mu nekk sëñ Ndiass Ndiaye ci kàddu yam solo yi nga xam ni euh, tey ji yëkkati na ko ci aliya rawatina ci bisub Cheikh du Lamine Baara bi euh, ñi ngi koy sant baax di ko gërëm sant mboolem ñi nga xam ne ñi ngi doon topp ak équipe bi ñu àndal sant Modou Diouf di leen jox daj incha allah euh, fas yéene ànd ak yéen ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf thank you